yeah suma gaay la is another time another Korka street talk tey nag maa ngi fi ak suma école de eh, suma école français school si tey nag dama dama dama dama seet maanaam français school si kan mooy njëkk a laajte sa morom léegi ah léegi dañoo play benn game dinaa leen la teg question nga la tema correction léegi yéen a yéen a njëkk a laajte correction bi déedéet yéen jigéen ñi di ñu ne man ma njëkkee ok baax Mariama. Mariama. weesu ñaata lettres ñoo nekk sa tur bi mu gaaw. M A jarul compter <laughs> ñaata lettres la. six. six. are you sure. yes. are ah, suñ la joxee. suñ la joxee five dalasi. ñu ne nga séeddaale ko si ten nit. nit ku nekk mu am five dalasi ñaata la di am. nit ku nekk. moo am five. non loolu mën na ah, ku nekk tara am. ku nekk tara am na nee na Tenit. nit tenit. ten nit nga séedoo leen five dalasi ku nekk dafa war am five ñaata ñaata ña ku ne ku nekk ñaata la war a am ku nekk talaa lay am ah. Eh. ah ok ñaata ñaata budut ñoo def moo ñoo nekk wan dalasi ñaar ñaari budut ah. waa léegi dalasi dalasi ba weer ba weer bi ñaata la ah ba weer bi ah. dalasi fa Yes. Mm. Yeah. Ah, ok, léegi sa là la ma question. Ah. mais non je suis français Ah, mon problème je problème français waaw en français. et eh bah toi tu t'appelles comment. mon ah, mon nom est Abdoulaye Korkaba. Abdoulaye Korkaba. Euh, c'est quoi ton travail comme ça Et c'est ça ton travail Oui, moi je travaille ici à QTV. Ah, d'accord. Mm Ahlan. Devinette, devinette, devinette. Tu peux. Mm. Mon français n'est pas bon, moi, tout pas, on peut français. Hein. Non, demain, il Non, mais definite, definite, moi, je definite. Devinez, maybe. D'accord. Mm -hmm. J'ai. Euh, je peux pleurer, mm -hmm. mais j'ai pas d'œil. Je peux voler, mais j'ai pas d'aile. Qui suis-je? Ok. Naneos, c'est ok. Comme. Ok, ok, ok. Ouais, comme maintenant, ah. mais en ma mën naa voler. mën naa ah. oui mais am la loolu mooy. yow lan nga ngelaw. ah ok ah nuage ok. merci. xale bi jékku na ma de ah, ah? jékku na ma de léegi ku may laajte léegi yéen a may laajte léegi yoo laajte ma léegi. en wolof en wolof. waaw mhm. am yaay Fatou. Mhm. dafa am ñetti doom. waaw beneen sa ah, tudd X. waaw beneen sa Y. Uh-huh. keneen ki nan la tudd beneen doomam bi nan la tudd. yow naka nga tudd. Adama. yaay Fatou. dafa am dafa am lan. ñetti doom ñetti doom. waaw baa ngi tudd X. waaw baa ngi tudd Y. waaw ah. waaw. keneen ki nu tudd Fatou. I <laughs> <laughs> got you that one. I got you on that one léegi waaye man tamit suma question bi mooy ah. Ah, ah, ñaata ñaata ñaata letters ñoo nekk sa tur bi yow. man five five. na nga Adama. naka Adama waaw. ah ok win nga <laughs> ne naka la. booy booy si kaay leen booy naka yaa booy yaa ngi sàcc de. non démb dañ sàcc dañ jóge suma néeg sàcc fóon yi yëpp laptop yi xaalis yi. sorry why so yow loolu nga am pour wa boy yi saatakat yi ak yooyu yeah tas nañ suma yaakaar but that's not the thing nañ nañ uti lañ def mm. yeah we can do it Gambian bi dafa am jom you know we can do it okay yeah léegi bala ma nga nimal ma a town indi Gambia boo xam ne ñetti tour la am a town bi nga xam ne ñetti tour la am xanaa Farafenni mm. Um, Batos. Mm-hmm. waaw ñaar yooyu laa si xam. town laa wax ñetti tour la am. ok benn town. foofu leen de woo George town da. ok I think so. Ah. waaw la mën a yem. waaw ah, foofu la mën a yem. waaw léegi xam nga artiste benn tey artiste la moo nekk ak mu di nekk. gisoon ne last time ngi demoon Guinée Bissau. how was it. yeah it was good it was a cultural exchange between the two countries. waaw mu mu neex trop um, ñu am si loo xam ne um, dafa nekk in between pour share music bi from from Guinée Bissau to Gambia from Gambia to Bissau yeah waaye léegi benn a cappella gars yi ñu ñoo xam ne ne xamuñ la ñu xamee ñu xam kii mooy kan oh <laughs> suñu diggante mu daaxun lim bébé soo ma gisul laan sa biir ak sa man moo tax soo man foog ma xam my heart is broke my eye do cry I think it's time to let you go ndax sa naxari the red ak sa tànga tey la fiñ suma ñuulaay suma ñaawaay suma ragaay tey la ndikiti yu ndeke sama waa ji mi ngi wuyu ji feneen moo tax bëggatuma nëbatuma la ma daj dafa doy mbëggeel léegi dafa gàttal fan bëggatuma nëbatuma lu ma daj dafa doy ah waaye korka ndeke maa ngi belli yegguma ma toj koñ bi xamuma ko ndeke maa ngi nokki yegguma ah dunda jàmma ndeke maa ngi belli yëgguma woo maa toj koñ bi xamuma ko I was thinking reggae ngay woy wala leneen nga fula ci fii nii but this is nice yeah single bu ees wala dara yeah before um, January like um, inshallah in end of December bi yaa album bi génnoon June second la this year June second ma génnee album bu bu neex yaa ga mu ngi tudda sant yàlla yaa sant yàlla album damay sant yàlla am naa may def damay sant yàlla gom may def damay sant yàlla man xam naa may def man bu nangu ku lekk desal mbaa kuy sol abal la su ma boppam ma la gënal du bañ la su ma moo ma gënal suñu. yow jàmbaar nga thank you suma gars dem leen check out album bi album yi fan ak fan la nekk yaa mi ngi YouTube mi ngi um, Apple Store mi ngi um, um, how to call it this place mm, Audiomack yaa ok léegi ku bugg album bi la la moo taay uh, Mariam Diop damay sant yàlla album waaw Mariam Diop damay sant yàlla album Rush Now and Watch It so Korka lu ma leen war nii lañ ko dee defee dañ dee tasee ndaanaan yi xam nga so wane wane lu ñu am nga dara lu du Gambia façon talent yi ñu ngi fi kii si wooyee nga fa ne fale la jógee te fekk fii fii fii fii la nekk voilà yàlla nga gis a fun bi ah. amiin. bul waaye. du ma jooy. <laughs> <laughs> ma. Mariam. how many letters do you have in your name. um. count it. <laughs> yes. <laughs> Six. Yes. Okay, let's count it. Let's spell it. Uh -huh. M A R I A M A. It's how much? <laughs> Seven. you, don't, you, you don't even know. This is funny. so mooy loolu rek orchestre solo te ne ku ma àndal moo nekk tres score ya ak suma driver bi ji booy ji di grade kii mooy ji di grade tey xoolal tey mooy suñu driver bi ji. booy sa tour bi ñaata lettres moo fa nekk. five. ji <laughs> yaa ngi ayusoo. waaw one million times nga naan ma. ah boo si léegi ji tey foo ñu yóbbu nag. tey maanaam ñu dugg si biir dëkk bi nga naka uh, on the twenty first of November. is World Television Day. Do you watch QTV? Yeah, sometimes, like, but not, mm. yeah, not always. Okay, what are your favorite programs there? Me? No, I don't normally watch QTV, yeah, because uh, I always focus on my books a lot. Oh, okay. And focus on your book a lot? Yeah. what are you studying? Which field? Arts. Arts. Okay, uh, arts, arts. Okay, let me, let me, let me see. Let me start one question and give it to you. Mm-hmm. Mm-hmm. You say, what's your name again? Ali Cham. Ali Cham? Yes. How many letters do you have in your name? Don't count it. In my name? Yes. You don't know? I know. It's how much? Seven. Seven? Yes. Mm. Okay. Seven. Okay. Name three arms of government. Three arms of government. The legislature, uh -huh. the executive, uh -huh. and the judiciary. Uh -huh. And the judiciary. Okay. maaleykum salaam. salaamaaleykum sister naka. jaam rek. maa ngi ok. maa ngi ok. what are the three arms of government. <laughs> legislative, judiciary and uh, I forgot the other one. Huh? Sorry, I forgot the other one. Yes. What is the, what is the function of the judiciary? It's to enact laws, huh? <laughs> to make laws. mm. Yes. Assalamu alaikum. Hi. How are you? I'm okay. What is your name, ma'am? Seinabu. Seinabu. Yeah. Seinabu. Can you spell your name? S-A-I-N-A-M-E. Spell your name. Y-O-U-R-N-A-M-E. Huh? Y-O-U-R-N-A-M-E. Mm. Yeah. Spell Sainab. Sainab. S-A-I-N-A-B-U. How many letters do you have in your name? Don't count it. <laughs> Eight. Eight. <laughs> Yeah. Okay. Let's, uh, let's spell it. Uh -huh. S-A-I-N-A-B-O-U. Uh ah. Yeah. Are you sure? Yeah. Uh, uh, uh yeah. I what is the what is the function of the judiciary? <laughs> the function of the judiciary. Um, execute law. Ah. Yeah. How about legislator? To make laws. Mm. So you don't know the, th the, the, third one. It escaped my mind. Ah. Yeah. So you. you <laughs> Hello. How are you? What is your name? Bindu. Why do you have this hot pot with you? We have cooking in our cooking. Yes. What do you cook today? I cook huh? rest. Rest? Yes. Where is it? <laughs> I already eat it. You, why? <laughs> okay, now, I'm going to ask you a question and you will ask me another question. Huh? So you go first. Which question do you want to ask? Anything. Hmm. Okay. What is your name? My name is Cherno Amadou Alahaji Abdullahi Korkaba. Where do you live? I live at Kotu. How old are you? I am 32.

Who is your favorite presenter? Ikawande Jela. Tok tok. Korka Street. Huh? Korka Street. Mm. Ah. Ah, okay, thank you. Yeah. No, what is your name? My name is Bogadram. Which, which grade are you? May I, grade, I am grade 8. Grade 8? Yeah. Are you, are you a rapper? No, may I Janga Quran? Okay, then, then Janga Quran I hear. <laughs> Eh. Just, just, just, just, just, just laugh. Just, just Quran. <laughs>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 ok lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musrikiina munfakin حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويكين الصلاة ويؤتوا الزكاة <laughs> Okay, now this is for you. Thank you. Okay, that was so great. Uh, they're a feel now, Lulu Torop. I can remember when I was young, small for the Madame Dour, especially. su ma naree so dama dégg ren boppa torop so léegi man su nekkee jangal ngi jàngal xale yi léegi si kër bi ma dóor leen su ma yéref ne doo bàyyi suma ni na ma daan so mooy loolu ko si toog la ah soo leen dee mën a tasee xale bu nekk nag whatever you can do just show it so mooy loolu xale boobu noonu thank you so much kid man keep it up Korka Street la nañ rool ñu dem si kanam ñu xool lan la ñoo amati. seenu Diallo. Senu Diallo. Mm-hmm. Okay. Do you watch QTV? Yes. What is your favorite show? Which one? Which one is your favorite show? Gum Vibes. Gum Vibes. Yeah. Who is your That man. That who? Uh, yes, that man. you say what is his name Bufa non non non non eh, na xam dels war naa be soona da nga pata demal nga train ndoy xamuñ sa tur sax dels Kambel ngay wax dels ay gam vibes lo nga you know what it is gam vibes so yooyu nga ne seetaan yes ah, ok yaa ngi baax tarap <laughs> Bufa kay sa la what is your name Zeynab Gajaga Zeynabu Gajaga musuma gis mbokki gadjaka ku du tay do you know gadjaka yes eh he's my uncle Mamadou gadjaka si uncle yeah. ndax am gadjaka boy yow moy lolou legui na da nga créer nga am mom mboka nak so musuma tase ku sant gadjaka ku du yow ñene ñu fa di ah ban school nga nekk di dari Diop ak Imam Malik ah, ak Imam Malik ok ah mo nga jang alcorane ah, ah touti neku bu baax de fo fo em man Ah. comme dam dee jël fu nekk rek. Ah. man demoo daara moo tax. demuloo daara lu tax demuloo daara. waaw ah. nekkoon naa daara waaye àgguma Qur'an. nekkoon nga daara waaye àgguloo Qur'an. ah ok nga ne nekkoon nekkuloo daara nekk nga daara waaye àgguloo Qur'an. nekkoon naa. nekkoon nga daara waaye àgguloo Qur'an. waaw. waa Lagi, kan mooy sa favorite gamen artist? Eh, Esti. ah joma ma akapela Esti, ST ma dégg benn Esti rek benn. steni omaro gawo fo jowol jikkomo afa ñamune ñaabo suwago fo duniya jammando <laughs> ko seydu mbala ka ba dimba fala dimba fo ñamala dun sala ka ba dimba fala dimbala mammo je ñun duniya mi yallan ko jawtala ah, kam wol sin bana bana léegi nak, léegi nak, ok léegi nañ waxtaan Gamen artist, artiste dama la ñaan ngir yàlla ak yonante bi soo leen dee woy woy leen lu baax xale yi suñ jàngutee alxuraan sax mun nañ seen woy kii mu ne moom munut a jànga waaw mun na munut a jànga waa waa mun na ma woy woy esti waa dee leen woy lu baax waay ah woy leen lu baax waaye jërëjëf dégg nga da nga seetaan QTV waaw waaw à part from Mamadou Gadiaga ah, ban show nga dee seetaan ah man QTV kañ hmm. sun passé news ma dee seetaan yow yow yow ban programme nga bugg a yokka pour QTV ñu yokka ban programme nga am in mind loo xam ne dañ ko war a yokka xamuloo. Uh, mm. ah okay. who is your favourite president apart from your uncle. Uh, I don't know Aysatu Aysatu. you don't have Aysatu foofu de. Uh, is it Aysatu. lu mu dee def. moom tam daf dee wax foofu noonu. lu mu dee wax. ñu sam dee riddi. Aysatu. xamatu bi de. ah jigéen la dafa sew. mu ñuul dafa ñuul. waaw fii la mu nekk. fa la nekk. collège fii université. University Jenaba Sonko. waaw Jenaba Sonko. ah ok lu ñaaw loolu. hey kooku dafa nice. jërëjëf.